Sénégal daa bëri critiqué tey boo ne woon Mame Matar moo ma woo te tegoo ko ci live bi dañu naan daa daw man duma dawal sama moroomu jigéen jigéen ngay jigéen may jigéen ngay taf nanaa may taf nanaa boo yaakaaree ma dawal la nga tëyax miir bu bari pont duma dawal sama moroomu jigéen man waaye nag bët bu rusul tot dama am ay mbokk te samay mbokk ñu leen di laal ba ñu ba mu jaral leen ñu toog di ko jooy waaye yéen boo leen jooyoon ba ñu gàddu leen yóbbu leen hôpital ñu ne leen da ngeen a dee ma baasal leen dëgal leen delluwaat ci coow li ndax man duma daw xare man bu ma naree dal daw xare yàlla jël sama bakkan man duma daw xare li ma maam Matar wax nag loolu laay def nee na ma naa jégg mu toog ku nekk nga koy woo ne ko weeru koor gi xanaa déggoo wax yu ñaaw yi xanaa dégg ma ne leen man damay xulloo ba ba daaneel te duma wax wax bu ñaaw damay ba daaneel te duma dudd lu ñaaw sama wax ku ne mën nga kaa dégg waaye xam ma lan moo gën a bon ci àddina ñuy déglu sa wax di ko envoyé doomu aadama kooku naan est-ce que nga foog ne yaa rey gaynde ga xulloo day civilisé maa ngi jéggalu tous les sénégalais maa ngi jéggalu tous les sénégalais xam nga lu ma leen di jéggalu ci wax yu ñaaw yi ngeen dégg te man maa ko waral. nit ku baax ku nekk may woo waa Jamra boo leen manqué respect dootuñu la woo waaye Mame Matar damaa woo live en direct ma koy rafetalu. di ko jéggalu bu baax a baax a baax a baax maam bi ma woowee léegi dama ko def ah, dama ko def main libre ba mu nee jébbalul sénégalais laa dindi main libre yi maam Matar maa ngi lay jéggalu bu baax a baax di jéggalu tous les sénégalais di jéggalu tous les di leen wax wax ji pare naa ci te dootuma ci waxaat ndax bal boo bal bu bal bu ma war a wax rek wax naa ko kon mënu ma fee wax lu ma waxatul woon waaye moo bi nga xam ne sénégalais yi moom njeeni di bañ a dégg heure boo leen ko xëyee indi national la moom laay ubbee muy duma emprunté jeeg duma costoor samay maas duma ñaan sama moroom xooñ loolu moom sama hymne national la moom laay ubbee ci kàttanu yàlla ku ci tontu nag sa affaire la mais man Mame Ndiaye Savon pare naa si te dootuma ci wax te dootuma ci débat te dootuma pare naa ci Mame Matar Gueye maa ngi lay jéggalu bu baax a baax di leen wax ngeen baal ma àq yéen ñëpp yéen kilifa yépp ndax heure bii ñëpp a ngi naafile Mame Matar dagg li muy def woo ma téléphone Mame Matar dagg li muy def woo ma téléphone kon loolu yombul kon nag maa ngi sant leen di leen gërëm di leen sant bu baax a baax direct bi fii laa ko yemale di santaat waa waa waa waa Jamra bu baax a baax di leen jéggalu di leen wax ni erreur bi lépp man la ndax lu ñaaw li ngeen dégg lépp bu du woon man doo leen ko dégg kon maa ngi jéggalu waa Jamra yëpp di leen wax ne leen Mame Ndiaye sabon bu direct waatee ci yeneeni direct lay génnaat ci yeneeni fësal may leen maay kër may dikka na ma dikka ñaa ah, may leen ma ay kër ah maalo bi neex na it de buñ ko amee it dina neex waaye lii dafa yàq bultuf bi wuy wuy ba ba kër gën a neex ci àdduna ba ba kër gën a neex kaay kaay andi boobu rek ma tëjee ko wa kat na yam ab ah, asaf ah, way ba ñu wone ngeen ba kay eh, andi andi andi boobu andi machine bi allo allo andi machine ba Eh, ana way wi waaw pare naa si waa jam woo nañ ma avant ñu may woo sa pare woo naa ba ba yow taalal da baax nag ak soof bu yoree lii moom da ngay découragé waaw bu fay. Eh, bu baax na waa kii noo waa Pikine lay way am ko nekk ci guerre policier yaa ngi bandi. Ah, kon maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp di leen wax maa ngi dagg laaj bi ba suba ak jàmm salaam lu neex du doy. dafa soxla jabaram namm jabaram jabaram téye boppam da neex. man damaa doon nopp man maam juma am dañ koo aimé daa doon nopp kii toog daa doon nopp ay xayri deux fois la dégg te tey bu buum bi dokkoon tey tey ma déggaat alxayri yow xam nga li ngay wax mu xamoo li ngay wax jox ma saabu 118 418 05 yéen ñi ñaan lépp banaa lépp mu set ak ma bàyyi wax bu doon suñ Fall rek nee na bu dee ma te yàlla tax nga dëgg la. ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la. waaw. dëgg la kontaan naa jërëjëf waay Kumba Jaam ndeysaan dëgg la ma chérie barki Seydina Mouhamed pare naa ci man pare naa ci wax da ngaa wax ba daaneel na xale bu góor bi dootu la nangataa xale bu góor bi moo woote fii léegi téléphone di jooy Fatou nee ma ko jox léegi mu ne ma loo lu ma mënta am ci àdduna sama jabar ñibbisee ma gënal waaye man góor gu ma takk danga may respecté jox ma cër man loxo bu ma bàyyi loxo ngi taxaw deux deux fois laa dégg alxayri te bu ma tasaatoon tey bu buum bi tey tey tey ma déggaat alxayri fii ma toog wér nga wéroo da nga dof wala da ngay laaj 78 418 05 94 77 369 04 45 dëkk ba yëngu mag ña xeexi xale ya ñaani xooñ gam bi ma leen tegal la jaay ma diw nga xeesal weex léegi xam ni man du sos heure tëdd jot rek ba ku ne sa njëgënaay tëdd boo tëddee di nga waxtaan ak sa njëgënaay di nga xam ni lii danga koo sos xam ni lii dëgg la lii dañ la koo waxal te muy dëgg man du ma sos barki Seydina Muhammad bu ma naree sosal doomu aadama yàlla naa tàq man lu ma wax sànq dëgg la waaye nag dafa am nit ñoo xam ni xam nga man nag dama am nawle te réew mi ku nekkul sa nawle du doon sa gaynde duma waxaat xamal tax duma waxaat bu la neexee soo paree daggaatal soo paree du duggaatal duma waxaat ndax kenn du jël pee ñaareelam bi mu takk yow yaa ko doon wax ak moom di vocal ak moom di ko digal lu ne xale bi di tëkku aawaam jëkkëram ne ko bis boo waxateeg moom ma fase la xale bi bàyyi la àdduna ak àllaaxira moom xale bi borom ceeb bi takk ak borom dawlin bi yow nga ruutale kees ruutale Banjul ruutale Sénégal ñëw fii ne fii ngay ruutale man jeeg laa damay wax te duma saaga ku nekk damay déglu te lu ma wax duma ci delluwaat jal joob sàng maar fukki penc ak juróom-ñaar waxandoo ak benn xale tailleur bu baax bi di def lu baax bàyyi Modou Kane amul loo ko waxut ci àddina yaa ma woo ne ma bàyyi tailleur bi loo wax ma ne uuxoo danga ma daal woo téléphone nee nga koo mës waxal enregistré nga ko barki leeru alxuraan lu ma mës a wax ak yow boo ko enregistré teg ko ci tiktok bi nga bërëngu yow nga xam ni koo woo doo ko may mu wax koo woo ñi la xam dëgg koo woo doo ko may mu wax dangay taltali di wax wax rek suba ak ngoon dama ne la boo génnee ma dëbb réew mi ba mel ni suukar ak suukaru koor ma jox ko jaamu yàlla yi ñu ndogoo ko te wax du am bal du tàq fetal du jóg li may wax sosuma ko fenuma ko waxuma ko lu toll ni tarafatal ay ni yow nga ne dangaa téye sa bopp dangaa vierge amoo jëkkër bëggoo jëkkër yow góor du la yëngal palaatu may ne tàppalante moo la yëngal boo weddee li ma lay wax ma génn sa faru jëpp bi man maa ko wax man te boo ko déggatee man mii maa la ko wax yow doo am jëkkër yow bii rek kansa nga ak kay dagg ngay kansa ak kay deseetoo baj sa ba ñëpp danga kaa poose sa yaay ju baax ji yàlla may ko jëkkër ju baax a baax a baax jëkkër ja nekk Amérique ngay génn ak sa jëkkëru yaay moo la yóbbu woon siin bi passé moo la daggal bi neel ñaar tey ma tas sa famille dama toogaale yow sa yaay bi la jur nampal la sa papa jiit la ngay génnal ma chérie nee naa la rab bi génn biteelu rose rek moo ko mën a dugal nii ma toogee rek jollu ko mu duggaat sulaar bee génn yow sa papa jiit la i génnal sa yaay ji la jur papaam di nekk États-Unis jëkkëram di ne États-Unis mi ngay namoon rakk yi nekk États-Unis seen baay moom ngay génnal yaw Thiès doo fa sëy doo am jëkkër loo xam ci lu bon génneel ma nga wax ma ko man yow man nawlawu ma la gis nga borom ñetti biir yooyu ngay wax jour bi mu la defalee contrat yaa ma njëkk a woo ne ma defar na ma contrat waaye lu baax la a waxal woowaat keneen ne ko contrat bi ma defal 400000 la borom ñetti biir yi nga koy jox. nee na li ko njëkk a jox quatre cent la nee na sa jëkkër ki ñuy wax ci tiktok bi te ñu naan jëkkëram dafa daw yow moomu yaa jël sa jëkkër daan leen teg place mu fase aawaam ba pare jël nga jël say mbokk jëkkër wutal leen villa nawloowu sa yaay ju ji may ko jëkkër ju baax a baax a baax jëkkër ja nekk Amérique ngay génn ak sa jëkkëru yaay moo la yóbbu woon siin bii passé moo la daggal bie neel ñaar tey ma tas sa famille dama toogaale yow sa yaay bi la jur nampal la sa papa jiit la ngay génnal ma chérie nee naa la rab bi génn biteelu rosé rek moo ko mën a dugal nii ma toogee rek jollu ko mu duggaat sulaar bee génn yow sa papa yi jiit la ngay génnal sa yaay ji jur papaam di nekk états jëkkëram di nekk États-Unis mi ngay namoon naan sama rakk yi nekk États-Unis seen baay moom ngay génnal yow Cees doo fa sëy doo am jëkkër loo xam ci lu bon génneel ma nga wax ma ko man yow man nawlawu ma la gis nga borom ñetti biir yooyu ngay wax jour bi mu la defalee contrat yaa ma njëkk a woo ne ma defal na ma contrat waaye lu baax la la waxal woowaat keneen ne ko contrat bi ma defal 400000 la borom ñetti biir yi enveloppe nga koy jox nee na li ko njëkk a jox 400000 la nee na yow sa jëkkër ki ñuy wax ci tiktok bi te ñu naan jëkkëram dafa daw yow moomu yaa jël sa jëkkër daal leen teg place mu fase aawaam ba pare jël nga jël say mbokk jëkkër wutal leen villa nawloowu la. dëgg la papa nii dañuy jouer théâtre. ah mais si dafa metti nii lay nii la def de. ndeysaan jërëjëf de nga. tëjal ma buntu bi. maa ngi jéggalu ci weeru koor gi yàlla moom mën ngaa tooñ sa moroom moo yàq la nga tooñ yàlla jéggalu ko mu baal la bis boo génnee wax ma ay bal boo ma waxi kilo ma wax la cinquante kilo boo ma ne sa ndey ma ne la sa ndey nga ne ma sa baay ma ne la sa baayu baay lan la yow danga ma mën a wax lu ma sama waa kër di xeebee man sama waa kër naw la wuñ la dégluwuñ la sax est-ce que yow wér nga yow na waay man dama ragal teraanga moo la manqué ndax am na yoo xam ne boo ko tàmmee ba toog ko dalay manqué dalay laaj démb susal ngeen ma planique ñuy jooyaat loolu ñu susal ma sàcc ñuy jooyaat loolu man bugguma ay sos ci xuloo man ay sos ci xuloo man xuloo damay bëgg muy neex muy waxante dëgg di waxante fii mais quant ay sos boo demee tëdd nelaw xam ne diw mi dama koo sosal amul sens eh nit ñi dafuñu <laughs> yéen da ngeen a neex nit ñi xam nañ duul yi fu mu féete man du sosal sama benn jeeg toog naan la nga wax diw diwal la gën a liggéey nday yaa ko indil jawam indil la sa jaw yaay toog naan ko diw mii nga dugg yaay xool boppam yaa koy xool yaa koy lijjanti lijjantiw la nawloow la yaa perte déçu yow yaa toogaat mbàq jeeg borom mbàq yi amatuma lu may kon yow wéeru dof nga yow dof nga yow borom mbàq gi nga xam ne yaa ko xas wax ko ay moo yu rëy reetaan wax ay bal yu rëy yaa toog tey di wax lu rëy lii dara safuma li ma saf dafa bari li saf dafa bari ñëw na. ñëw na jërëjëf tappate rek tappate leen rek ñu waxtaanee ko réew mi moom ku ma dugalal ma dugalal la ku ma waxal lu ñaaw ma waxalal lu ñaaw amul werante nga dégg njaajaan man awma kër awma dara yëkkati ay millions ay millions di ko yëkkati di ko def ci ay bi avion pour lan defante defante la tardeel boo ko bàyyi bu doom la fal ndaayam xale yi concours ñu oto xale nga ne sama yaay xaw ma lan man sama yaay dama bëgg fi mu nii ci yow sama mbokk yëpp a takk ba mel ni mbësu man moom boo noppee rek nga doy sànday li yow ki ma sosaloon sama maam sàcc daa toog jooy baalu ma ma baal ko nga xam na ay dund la ay duul la du safe yaay arrêté ma arrêté yaay teg say lenge ma teg say lenge maa raw Poutine loo wax benn fukk dellu loo ma xas benn sans dellu si boo mën ne cagg bi mën na la cagg bi ndax yaa gën a cagg ñëpp ba ngay kattante damaa judd ba pare man defuma jugement chéri man xale laa damaa teel a sotti teel a am jom teel a am fit teel a am vingt doon vingt kër man sama yaay bu ma génnee midi et demi damay génn dem dugg sama kër. laaj ma waa Ndakaaru xam nañ ma wan naa leen gis nañ man villa laa yor te bu ci kanamee tuuti oto bi gaar man du dawal oto quinze millions man damay katt nday oto trent millions jëm kaw te yéen fi maa ngi fi preuve à l'appui téye leen vidéo bi man du dawal oto xandaran xandaran jaas yow ay xandaran jaas nga yor yoroo oto bu baax. maa bëgg boo ñëwee ñu xuloo ñu xuloo katantay nay ku ne raj sa data sa sa ku ci taxaw rek rek taxaw sax daanu na mbir da bàyyi ñu ngay sosal bàyyi ñu ngi inventé baal jëg juriste yi ngay tudd baal jëg biisu jaga na man am ku nekk ci nguuru mag sàll gi maa sàllaa moom jabaram nii dafa affaire de fraude mu lay financé ay millions yow sa njaay mi li ñu ciy dépensé dala ko mën a may nañ inventaire nañu inventaire baal duul baal sos bul ma duulal bul ma sosal man munoo maa duulal munoo maa sosal munoo maa wax lu ma saf boo génnee wax ma ay bal nga dégg ay bal sa ndeyu ndey ba seen waa kër kenn nawloowu la nitu mbedd lañ la jàppee woon boo daan xeex di reyante mbedd yee jàmbur yàlla yàlla ya seen waa kër faale wuñ woon sa ndey macha allah tubaar fa kàlla li ñun sunu waa kër a nga nee Moussa lu luñ ko wax dañ koo sosal sama maam du sàcc dangay laaj ku ko duuloon ba mu toogaatee di baalu àq yow la sa maam di sàcc yow la sa maam di duul kat yow la sa maam di cagg sa maam yow ana lim sàcc am na lim càggatu yow sa maam lim sàcc feeñul man na comme que sama maam sàcc na lim sàcc feeñ na yow yaa ñàkk jom yow war ngaa toog ne dangay ràkkal Cobra koy làkkal man man Diallo Diéry bokk ak sant man loo ma wax la nu kaa à moi man ku ma àndal daaw moom lay àndal ren su ma xamee su ma ànd mënta nekk ma bay la waaye du ma la yàq xale ba nga yàqoon di ko toroxal ci digg tiktok bi yàlla sagal ko mujj gi ngay dem ba say bal jeex nga woo ko téléphone mujj gi ngay maslaak moom faalewul sëll fa nday dala raw masalla tubar fa kàll fi nga ko fi ko yàlla toroxalee nga toroxal ko fa jooyloo ko la ko yàlla taralee ba àdduna bi teg ci seen bët keneen ku góor kii la cax la cax li ci téléphone nag lu ko rawale sama téléphone yow tee ngaa réglé masala miin nga kaso miin nga pëlis miin nga cagatu miin nga kattante miin nga boîte ana cagaa xas naw la cagaam man caga laa lesbienne la waaye lesbienne ay xam moroomu lesbienne am cagaay xam moroomu cagaam keroog bam la ràkkalee masala da la ràkkal xale yëpp ngi taxaw mu ràkkal la live wax la njaay yaay bandi yaay gëj boole yow la takk nga am jëkkër sa apprenti di la kat lu neex nga di ko daggal bee avion masala dëkk ak dëkk sa jëkkër bett la suur la wéroo dof nga sa jëkkër sobe si laa tanatul kilifa yi di la kat masala yëkkati benn vingt may la ndaanaan bu mag bi man duma joxaturu kenn sëñ bi kat la may la vingt jaddu ponkal bi moo la ko présenté wala yow da ngaa bëgg ma wax tojal lekku nga nee naa la man duma la sosal dama lay waxal ay bal man duma la sosal ba ma lay waxal loo xam ne tey ji bu ma tëddee damay xam ne lii dama koo sos amul saas yow koo àndal duulal nga ko yow ana sa àndi daaw ñépp nga duulal xale bi barki démb Njaay nga duulal ko muy maman vulgaire nga duulal ko wax ko njaay yàlla teral ko ci diggu pinc njaajaay njaay dem nga ba tam ko dëmm ana Zal Mbay ana keneen ak keneen yow kon maag yow ayam aw ma ànd daaw amoo ànd daaw man sama benn ànd rakk lu ma ko ci digg tiktok bi sama benn ànd rakk lu ma ko ci digg internet bi yow yaay rakkal yaay toog macha allah ubbi say tànk wax leen njaajaay njaay duulal leen ay bal yow yaay caga yaay ganjaari yaay giwin yaay lesbienne yow sa vidéo yi nga xam ne xale bu góor bu la cax la cax bi moo nekk ci téléphone am moom nga sant ay xale ñu jàpp ko agressé ko nangu téléphone bi man duma la sasal ay ballaa lay wax man duma la duwlal ay ballaay wax lu tas sa sëy lu yëngal sa sëy ki nga topp nobu la ndeyam bëggu la keroog ba nga wootee programme goro ñëwul njëkki ñëwul maa la gën aller retour man jëkkër damaa xool safuma ma katt ndeyam ci bande tuus yi génn def vidéo un mois vingt jours yow sa jëkkër daa mandi sa data da koo seexlu ndax data boo xam ne employé da ciy sëgg di katt ba fajar ko jëkkër lu mu koy doyee man duma tuusee gum sa yaay duma tuusee gum sa papa duma tuusee gum sa famille sama maam yi ngay wax moo gën sa maam yow sa maam keroog ba nga ko mu toog ci ay baraag ko fekk sa maam ñaaw modd ñuul tilim ñàkk man sama maam bu dee sàcc sama maam cagala woon te na ba heure bii amul ci lëfal ndayam ba mujj gi ngay jooy ci digg internet ne nañ ma jox sama kër maam gi ma tabax ko man duma la duulal jeeg bi ponkal bi di la macro normal not a sos my baby not a sos dañuy ñëw ñu yàqante ko ku ne wax li nga xamal sama morom man yaa ngi may sosal man du ma giwin du ma caga ku ma mës a kàtt génnal wax sama jëmp bi génnee ko boo ko génneewul baal ma la ko man du ma la sosal yow sa maam caga la woon kattante na ba dataam ràpp amu ci kër kattante na ba dem wuy ji yàlla sunu borom bi maa sàllaa mënu cee tabax terrasse man sama maam sàccam jariñ na ko douze kër treize terrain trente deux boutique Alaaji Moussa Diop kon xanaa du sama maam la mu sàcc jariñ na ko yow sa maam la mu cagatu jariñu ko dara la tubaar fa kàll dund na ba yàpp bu ko lekkee semaine bi semaine prochaine du ko lekk yow yaa xam kattante yaa xam njaaloo lu tas sa sëy ama ko du dootu la tiim ndeyam dafa am fulla yow goro bëggul njëkk bëggul yow Pikine nga nga dëgg kenn bëggul man cees bu tayee ñoom ñëpp génn vidéo la Thiès dëppa ma bëgg sàppoo da ngay duwul da ngay duwul pire bu ma sasal a ko dund en consentement luy loolu man duma la sasal ci ndey duma laal sa ndey duma laal sa baay ba nga laal sama ndey laal sama baay ma gënaat wax sa ndey danjaari bos sa njaay à toi de juge nga am sa taw masalla dem ci sëriñ ba nga demee ci sëriñ bi pour ma ñaanal la sëriñ bi katt la ëmbal la muy sa taaw yow la ñu katt yow la ñu ëmbal ndax gàlla jarana la lu ne ama kodd muy sa jëkkër sëriñoo sëriñ turam mbaa nga fa fay biram penda waagaan ndayam dafa mat ndayam daa daqaar sa nday ci bit génne la ca xaj doo fa sëy bu guddi jotee ama kodd du la kaas livreur yëpp cag-cag yeenay katt mais pas ama kodd kooku ndayam dafa liggéey kër baayam ndayam dafa sëy yow ama kodd du la takk ñàkk a katt yi la sa jëkka doon ji di ñàkk a katt moo la metti ba tax na nga ne ku ne ci tiktok bi di nga ko ràkkal du ma maman vulgaire du ma keneen ak keneen maag yow bal du ma du ma la sosal yaa ngi tudd turu di tooñ yaa duulal masala man munoo maa sosal dara dara safuma man Bijou Diagana moomu ngay wax damaa ruus munu maa wax ci moom barke borom Touba ndax ngor rek la ji munu maa wax ci moom lu toll ma baax ndox réew mi defuma fi dara maa non liggéey rek laa xam jaamu yàlla képp sama inde down bi ba mu dëgër sama lëf du APS benn oto jaaru ci man nag sama xuloo lu a soft sax nag tëkku dafa am rek ma génn ndax na dama ne woon du génnaat tey wax mais dama gis menaces yi moo ne waa pour lan menaces yi pour la yan menace kan la ñuy menacer man Cobra man l'international man man kuy duul maa la dàq duul kuy sos maa la dàq sos te man duma la sosal li nga xam ne muy dëgg duma sosal benn xale man duma sosal benn jeeg ci réew mii pour la xale da koo jar ma duulal sama moromu jigéen ma wér tëdd sama kaw la xam duwlal sama moromu jigéen loolu sama ngor man jàllo mayu ma ko sama ngor mayu ma ko ma jàpp sama moromu jigéen wax ko lu ñaaw xas ko te la ma koy wax yëpp ay duul la ma tëdd ak saafara jàpp ni lan